ba moo tax nag duñ ko seetaan et nañ def lépp lu ci war ànd ci ak Walfadjri ànd ci ak journalistes yi ak techniciens yëpp bu mu génn si jàmm ak salaam jërëjëf. jërëjëf Ibrahima merci beaucoup Issa ma bàyyi la ah ñu ñu jël ak kan waaye bàyyi ma bàyyi la Issa ba yi baaxul. <laughs> voilà ñu di ko jaajëfal bu baax baax moom Ibrahima li sa fay dañuy xaw a baral jéego yi nag ndax euh, di heures lañ war a yamale selon l'arrêté bi moo taalatin produire. ñu jël Pape Alé Niang di sunu naataango taskatu xibaar moom itam mu yëkkati ci ay kàddu ngeen jëf mbooloo mi ñuy rafetlu bu baax a baax seen teewaay ak soutien bi ngeen def tey jii ci sitim bi ñu jagleel suñu naataangoo bii di taskatu xibaar Pape njaay lu war la ndaxte dama jàpp na place su njaay du kaso te nag comme ni ngi nekk en direct dama bëgg a wax ak sénégalais yi ñu dégluñu bu baax parce réew mi defe naa ne jot na ñuy waxante dëgg te duñ ko raay jàpp naa ne Pape njaay waxu fi lu jar ñu dugal ko kaso ba ma gisee li nga xam ne moo di liñ ko tuumaal dama jékki ba ci yàgg ma ne lii de américains yi tuumaaluñ ko sax Ben Laden ndax nag am na loo xam ne xel mënu koo nangu ci foofu lay jaar lancer message juge yi parce que nag ñun dañuy déglu ñeneen ñuy wax kàddu yoo xam ne dafa jéggi dayo tey jii dégg nañ ku mel ni Ahmed Suzanne kamara mu yëkkati fi ay kàddu yoo xam ne ci ñaari nit ñoo xam ne ci place bañ dën liggéey place bu amal njariñ askan wi la ndax ci force de défense et de sécurité lañ dën liggéey ñu réer mër mu am fit toog ñeenti yoon ci tele yi tuumaal ay nit dëggal ne ñooñu dañ leen boom ca booba procureur de la république ne dafa ubbi enquette ngir saytu mbir moomule waay waay bu nekkoon ne dëgg rekk moo ñor ñëpp foog naa ne Ahmed Suzanne Camara boobule waroon na dem wuy ji ak ñi mu tuumaal sax procureur daf leen waroon a woo ñu enquête leen kon suñu demee ba askan wi gis ne justice bii dafa am kumbaam ndey kumaamul ndey te saa ko yëkkatee ñu koy misaal di wax ne bu ñu attaqué li nga xam ne moo di institution judiciaire kenn ñaanul yàlla nërmelal institution judiciaire ndax mooy cëslaayu réew waaye bu nekkee ne nag dafa am ku ma am ndey ku ndey ñun ñëpp war nañoo tiit ci loolu juge magistrat nit lañ mën nañoo juum ndax nit ku dul juum amul te nag jàpp nañ ne jéego yi Sénégal dox ci wàllu démocratie ruuslu ne fi mu nekk nii ñu ne ay journaliste ñu ngi leen di tëj ci biir kaso Pape Ndiaye fi mu nekk maa ko fa jiitu te ba ma ko fa jiitoo ba ma jokkook moom téléphone yàggul nee naa ko ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay mën a wax fi ngay toogee mais nag mi ngi nekk ak détermination mi ngi nekk ak fit mi ngi lancé tamit un message kon ngalawaay ñi nga xam ne Pape Ndiaye yàgg na leen a xeexal nañu gestu nañu bàyyi di wax journaliste yi bu ñu laalee seen moroomu journaliste rek ñoom ñëpp ñu tëb moo ne fii ku sa bët xonq nga daw si si journaliste yi muy politicien di syndicaliste di néegu doole kon bu journaliste amutoon kon mu ñaaw ñépp ñi fi tëb di balballu ba ñuy nekk ci ron lal gi journaliste moo leen tàllal loxo génne leen fa kon dama bëgg dama bëgg ñu delloo si waat xel yi am yërmande am yërmande am yërmande ndax nag dafa am loo xam ne ci réew mi faw ñu bàyyi ci xel du tëj kaso mooy regle problème mu Sénégal kaso yi dafa dem ba léegi xale yi dañ ko boole seen CV maanaam dangay génn kaso di bàkkoo ne dugg naa kaso ndax du gàcce dafa am lu wolof di wax wolof nee na kaso bàmmeel foofa dem fekk fa ku la gën. kon Pape Ndiaye fee mu nekk ca sebi du place am message bi nag président de la république laa koy lancé ngeen may ma rek ngeen may ma ngeen may ma rek dama bëgg monsieur le président de la république que ñu moytu di judiciariser lépp ñu delloo siwaat xel yi ku nekk joué rôle am ci démocratie groupe Walfadjri gàcce ngaalaama lépp lu leen waroon ci wàllu démocratie xeex nañ ko fan ko war a xeexee ak nañ ko war a xeexee respecter éthique respecter déontologie ndax kër gi ah néew na homme politique bu bëtam xonq te ñëwul toog fii jooy ko kon dama ne ñun journalistes yi nag laay jeexale ñun journalistes yi nañu waxoon te dëgg suñu biir xam nga yenn fumisterie yi man bokkuma ci ay nous allons défendre pour le principe fii dama ne koor boo gis bu ñu laalee moroomam day jóg taxaw xeex musuñoo gis magistrat bu diingat moroomu magistrat am musuñoo gis policier bu diingat moroomu policier mosunoo gis gendarme bu diingat moroomu gendarme ak ñeneen ak ñeneen corps boo gis ordre des médecins incendie am na ay bakkan rot fa ñu war a imputer ay responsabilité ordre de médecins jël ay responsabilité défendre médecins yu nekkoon foofu kon nag ñun war nañoo gën a góorgóorlu xoolaat suñu bopp parce que nag c'est pas parce que Pam Ndiaye mi ngi kaso rek nga ne c'est bon pour lui yat bi duma daal Pape Ndiaye bërki démboo Ndiaye man la doon manifestel ba mu koy def xamutoon na yat bi dina ko dal kon bu ñu jógee ci Pape Ndiaye bu ñu làmbee mu nooy ci keneen lañ jëm kon nag gars yi mobilisation mobilisation pour la libération de Pape Ndiaye merci beaucoup. merci merci beaucoup merci beaucoup. merci ne waxtu daf ñu dab. Pape Ndiaye libéré Pape Ndiaye libéré Pape Ndiaye libéré Pape Ndiaye libéré Pape Ndiaye merci merci merci Pape Alé li wax dëgg la fi mu toll nii nekkatuñ ci loo def ak loo wax ak nu mu demee dañoo nekk ci na génn sa xarit buy xeex boo yegsee yem ci buy xeex buy laaj lu ngeen jotee xeexal ba pare soo paree laaj ko lu ngeen jotee kon foofu lañ toll alors léegi dañuy jox keneen euh, kàddu gi muy Samba Biagi nekk sunu naataango itam sàmm bu yàgg yi kon yow itam nga yegg si ñu jox la kàddu gi tuuti ndax waxtu mi ngi ñuy tënk te bëgguñoo tooñ bëgguñoo jéggi ah liñ ñu may rek loolu la ñu bëgg a jël